tunkara xam nga la gën a garaaw. fuuf sax man ba may garaaw tunkara boobu yow yaa ngi téye fe kere di bind. loolu dëgg la man ba may garaaw yow yaa ngi téye kere fe di bind. loolu dëgg la dëgg la. kon moo tax nii nii gis naa euh, xam naa stratégie ngeen ngeen di waale <laughs> mais nangul naa la ko man fair play fair play laa demee nangul naa la ko léegi. ñu dox ci ñu dox ci leneen. Euh, euh, noo gisee ñoo lank ñoo lank ñoo ñoo bañ. Hmm. kii boobu mouvement boobu noo ko noo ko gisee ak seen doxalin ak seen bagage. waaw euh, xam nga ñun suñu réew dafa dañu nangu tey kenn ku nekk am sa xalaat am sa doxalin def sa doxu ñaxtu wax li la neex ak li la neexul. Mhm. kon loolu. lu ñu mën a nangu la daal. Mhm. te lu am solo la si ay surtout ay ndaw ne ci. muy exprimer waaw ñuy exprimer wax li leen naxari. wax li mhm. leen metti. Mhm. ay surtout man loolu. Euh, gis ma si benn jafe-jafe. d'accord maintenant euh, noo gisee actuellement ñoom ñu ngi ci ay euh, ay ay bagages ay ay divergence ñoom seen biir ci ne premièrement dañ dem seeti ji Ablaye Wade bi nga xam ne ñenn si ñoom ñoo ko doon xeex démb bërki démb am na ñu dem am na ñu demu bare na bañ demee euh, euh, Wade jox na leen euh, xaalis pour participer ci seen activités yi loolu tamit am na ñu ko ñu mu neex am na ñu mu neexu beneen bi nga xam te mooy divergence en tout cas def naa de fond bi bi fi nekk nii mooy est-ce que dañuy dañuy dem gisante ak président Macky Sall waaw wala déet ou bien avant ou avant ou après libération Guy Marius Sagna suivre nga polémique boobu mm-hmm. loo ci xalaat waaw euh, xam nga wàllum politique moom ay satu yow yàgg nga ci réew mi pour xam ne léeg mu jaar nii léeg mu jaar na le politique nee nañ du ëmb. day xëy rek wasin mhm. xam nga yooyu yëpp euh, am na. Mhm. Euh, maa ngi fàttaliku ay satu pour des benn kii bu ndaw rek bi ñuy dem élection mhm. législative 2017 dafa am ay parti politique yu ma woo ne ma naa ñëw bokk seen liste. man leen man du ma bokk ci liste politiciens yi parce que politiciens yi dañuy galgalante dañuy pàddante mm-hmm. dañuy te man xaw ma yooyu munuma mm-hmm. ko mm-hmm. donc man du ma ci dugg donc yi ñi ñuy def ci wàllu politique man vraiment xamuma ko te duma ci sori ay sata waaw loolu nga nangul ma ko rek affaire politique moom man mais bii nii bii nii ci commenter plus que ça non affaire non si wàllu politique bi moom. man xaw ma si dara. Mm. parce que du ma politicien aw ma carte politique mm. carte parti politique. Mm. te fas ma ko yéene sama àdduna. Macky Sall boo nee jël parti politique doo nangu jël carte euh, euh, parti euh, carte APR doo doo nangu. non du ma nangu. président maak moom mosuñu wax waxu politique waxu liggéey rek la ñuy wax. politique ay liggéey la. liggéey liggéey si réew yi pas politique bokk si euh, parti politique wala dem meeting wala dem coordination musuñu wax si loolu. Mhm. mais mais comme lii nii nii boo gisee ne boo déggee ku mel ne Mahmoud Saleh muy wax ne euh, euh, ne le président indiwaat ci APR hmm, na indiwaat commission de discipline bi daal di defar bagage kii ba rebelle yeeg ñoom seen yooyu pour yow lu baax loolu lu bon la. no man loolu. xaw ma si dama sama xamul. mais dugal ko da ngaa naan lu ñu wax ngeen doo si commandé. non affaire non waxuma du ma commandé de déedéet. ayisatu ma ma hmm. dama ni xamuma si dara. mais xam nga am nga ci avis tamit. loo lu ma xamul. Hmm. xoolal man dama am ay naataangoo yu may. jàpp bu doon démb démb démb bu nekkul woon boo nekkul woon li ma leer mooy. Hmm. parce que man j'étais friande euh, say say say say courrier ak say bagages ak yooyu. Euh, man lu ma leer mooy que yi xew nii actuellement boo nekkul woon conseil spécial titre boobu poste boobu ñu ko joxul woon ba tey yaa ngi ci feuille di bind. yaa ngi jël say xeeru raay di dóor di tëmbal yaa ngi invité gars yi euh, kii leen xëpp leen acide ak ak ak mais fi ñu toll nii yow. Euh, da nga da nga da nga accepté sa bopp daal Tunkara man man moo ma jë yow nangatoo sax fii nii yaa ngi congelé nii vraiment kii nii nekk mel mel benn glace nii nangoo wax dara pour lan. Aïssatou waxuma nangu ma wax de. da nga ma laaj loo xam ne xamuma ko. man la xamuma mais am na ci avis Tunkara. non de man sama avis. Euh. dama koy motiver par xam-xam. waaw gën di mbindeef nee na wax xamuma mooy genn wàllu xam-xam. xamuma. li nga wax nii. mais yow lu ma la ne lu simple loo xam ne si damay toog su ma ko nee Mahmoud sale bu nee nañu indi na Macky Sall indiwaat ci seen parti commission de discipline pour euh, euh, mbëkk ñii di génn di xastanteeg waa parti bi ñu génn di xastanteeg nangam di tànqal sénégalais yi ah loolu si danañ ci am xalaat yoo ngeen amati benn xalaat yow. lii lii président bi si kaw foofu. je te remercie Mamadou pour l'excellent travail que tu fais. waaye Aïssa da nga koy liir nànk. <coughs> Eh, eh, ubbi leen micro yi ma lii bu baax hmm. ah après nga jox ma mail bi non liiral rek. waaw après nga jox ma mail bi. léegi dafa la ne euh, je te remercie Mamadou mais loolu la bind naa bind fa lu rëy je te remercie Mamadou pour l'excellent travail que tu fais. abal ma. ah in walla. am na beneen boo lay wanaat. waaw léegi. Mm. président lu tax mu bind ma lii. waaw parce que wàccaloo kii mail bi moo tax wàccale mail ma xool lépp. ndax ma xool ca kaw yow tam nag sunu mail sunu mail <laughs> sunu mail yëpp mais maanaam. kontaan si la si si si. parce que man liggéey laay def. xaw ma leneen ay satu. Ah, mooy daal yow tu ne dis pas un mot plus haut que l'autre. c'est-à-dire li ma xam. maintenant tu dis plus un mot plus haut que xam nga samay étudiant waaw ah. dañ may déglu di ma seetaan te dama leen di jàngal loo xam yàgg nañ di say étudiant yàgg nañ laa déglu di la seetaan ngay daj dajee ay ay ay nit fii <laughs> di la mbaj mbajee waaw ah, kon bu yow bu ma def noonu <laughs> non Aïssatou man du ma wax lu ma xamul. Mm. loolu laa fas si la yar samay doom. Mm. si laa yar samay étudiants. Mm. si laa bëgg dund ba dees du wax lu ma xamul. ah non non vraiment Macky Sall daal franchement franchement c' est vraiment dommage Macky Sall nous a nous a tout ce qu' on aimait mais c' est incroyable daal heureusement 2020 2024 lay dem 2024 la Macky d' accord <laughs> ok. d'accord surtout Diop Fall. c'est pas passé d'accord <laughs> d'accord je passe à autre chose. Euh, Guy Marius euh, ñu libéré ko wala ñu may ko euh, liberté provisoire gis naa temps yi yooyu la yëngu. ah non foofu nag foofu nag mun naa fa wax. parce que Marius sama sama wóllëre personnel. waaw ok. maanaam moom dañ xamante dañ jëflante dañ yàgg demante kon man bu dul Guy Marius sax amul ku ma yéene mu dugg kaso dëgg la kon ñu génne ko man loolu dëgg-dëgg sama lu sama mbébét la daal. d' accord léegi léegi ba ci des ah, mooy euh, euh, courant bi ñu yokk gis naa sax léegi moom dafa mel ni affaire dafa xaw a loo tuuti gars yi euh, dañoo wax ba sonn ba seen yàpp saf ñeex moo tax waxatuñu si gis naa sax itam nga génne benn article tuddee ko électricité relever le défi de l' accès mu ne foofu yaa ngi yaa ngi xaw a defaan tout yokkum électricité bi mais foofu li ma la bëgg a laaj mooy ci gàttal rek est-ce que coono yi Senelec bi yëpp bu fekkoonte ne nguur gi dafa wa dafa gën a wàññee bu baax a baax euh, seen train de vie ñoom ah euh, supprimer yenn institutions yi nga xam ne am tekkiwul dara euh, a oyof si courant yi cher. ban ah, ah, moo tekkiwul dara par exemple. mais fii ñu bëri <laughs> fi nekk yëpp yow sa yàgg nga ko wax yow. loolu Tunkara yaa nga fay ñaawlu institution budget de fort budget de comme ban laa ñaawlu woon. Euh, HCCT xaw mënu ma ko wax au conseil quelque chose. man ma ñaawlu ko. yàgg nga kaa ñaawlu. ay ay ay sa sosal nga euh, Sénégal yi ay tegal vaar tegal vaar. non euh, kii ma maa aussi gën a ma vaar a important damaa bëgg incha allah dimanche yéen ñëpp fees seen réseaux sociaux yi génne leen ma vaaru Tunkara <laughs> yi. ah dégg lu HCCT Sénégal yi laa lay boole HCCT xaw ma mënu ma ko wax au conseil ba ku ne xam ne amul benn njariñ Euh, beneen ba conseil économique et social kasaalika noonu. amul njëriñ. ban njëriñ la ñu am dooru ñu fayuñu lu lekk xaalis képp lañ fi nekkee ak naan taxaw na si ay ay ay session ak ay kenn xamul session yoo xam ne nii wax dëgg fa yàlla kenn mënu taxaw ne session bii njëriñ est-ce que dafa impacté ñun suñu dundin amul njëriñ loolu casé nañ fa euh, ay ay ay euh, clientèle politique moo fa ne yow loolu li ni yëpp yaa ngi yow tunkar la tunkar la d'avant yaa ngi na fay wax léegi nañ laa cuub moo tax fii nii sax xam naa posé woon sol baron beige moo tax sol moomu da nga cuubu léegi mais boobu euh, conseil social ak ba beneen ba bu fi nekkaat tamit moom kii sans compter nag àddina agence yi fi ne nga xam ne dooruñu fayuñu ñu dara chaque jour nga dégg benn benn agence bu ñu créé ki sert à rien du tout donc ñooñu yëpp bu ñu leen bu leen supprimer woon boo ñu doxalee leen boole leen ci benn nationaliser les dépenses. xanaa mu gën a oyof tunkara yi nag war nga cee mën a wax nag wax dëgg yaay tunkara nag. Hmm. waa yow yow yow ngay donc nañ supprimer HCCT. Hmm. supprimer conseil économique et ne est-ce que j'ai mis ah, nga tekkiwuñ dara. tekkiwuñu dara kay. ko wax sax déedéet man loolu musuma ko wax. loolu musuma ko wax loolu moom du sama waxin man du ma waxee noonu parce que xam nga lu ma gëm Aïssatou mooy euh, amul lu tekkiwul dara li am solo. Hmm. mooy lan lañ si def. ak yenn résultat la génn HCCT am na njëriñ bañ mën na am njëriñ. Oh, mais am na njëriñ actuellement ou pas. am na njëriñ kay. ñii nii yow amalu la yow amalu la njëriñ. yow amal na la njëriñ yow ban ban njëriñ la la amal yow HCCT wax ma rek jox ma benn njëriñ boo gis HCCT yow yow mu impacté sa vie sa vie yow sa quotidien jox ma benn. bon léegi man. Ah, yaa ngi réfléchir bu baax déedéet Aïssatou yow yow naa wax nag léegi. man dama gëm ne ñun model bi ñuy doxalee. lenn moo ñu mën a jàppale mooy sunu gox goxaat yi. tontu woo ma. ñu dooleel leen. tontu woo ma. léegi ay HCCT mën na bay waar wu rëy. mën na bay mais bayul. léegi léegi dama laaj ne nee naa la Tunkara yow yow yaa na invité sa ay gars. Euh, maanaam yow ku ñu bokk ku ñu bokk bëgg Jean-Jacques Bourdin ba ca BFM TV day woo benn bi ne ko euh, kilo liibar ki kilo ceeb li muy jar en direct wala benn imam ko benn saar en direct <laughs> donc naa la tariloo saar yow <laughs> man moom war na damay dama damay waaf ci suuf bu <laughs> wàcc ba gis daal ci gën a gaaw mënuma ko laxat jaakum laa bu nga tari waaw waaw euh, xam naa ne dugg nga ci benn bagage waaye bàyyi naa la ña may déglu dóoraale nga ma ci mais ña ña may déglu ñi seetaan moo may fayul léegi